mbokki jullit yi mbokki taaliba yi jàkkaarloo ñun ci seen sit al azhar touba point com ñu ngi del si di leen nuyuwaat di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu seen mbokk Mouhamadou Mourtada Abdoul baax moo del siwaat ak yéen di am yéene seqaat ak yéen yim yi mu baaxoo seq ak yéen di ci jéema leeral téereb Sëriñ Tuubaa bi mu tuddee Tazawudu Shubaan xam ngeen ni jotaay bi weesu ñu ngi yamoon ci lu aju ci euh, njàpp wax ay farataam ak sunnaam ak yenn ci ay leeral yu ci aju ñu war a ñëw ci lu aju ci sangu sangu farata kon euh, foofu la sunu jotaay jëm tey jëm sëriñ bi radiallahu anhu moo wax ne faslun li ab dog la fii faraidil xusli jëm ci faratay sangu euh, faratay sangu mooy yi nga xam ne boo dee sangu farata euh, dañoo dañuy nekk dañ dañ ngir cangaay li mën a baax mënuñoo ñàkk ngir cangaay li wér mënuñoo ñàkk ñu war lañ ci sangu war lañ ci sangu farata min faraa'idul xusli faratay sangu la day yim fa ñoom arbaun ñeenti lañ nee na faratay sangu fa ñoom borom xam-xam ñeent lañ maanaam seenu lim daal ñeent la awaloha bi jëkk ci ñoom anniyatu mooy yéene xiina yasran ci waxtu mi tàmbalee nee jiitu ci sang faratay sangu mooy buy tàmbali cangaay li mu yéenee Euh, sangu def maanaam def faratay jëmmi sangu farata mu yéene koo def ngir jëmmi yàlla wala mu yéene yëkkati toj mu sangu mag nga xam ne nekk na ci moom yëkkati ko ngir mën a euh, jaamu yàlla def ay jaamu yàlla yoo xam ne bu dul woon bu ànd toj moom moom du ko mën a def kon li muy yéene mooy mu jubloo sangu farata ngir jëmmi yàlla loolu mooy li yéene daal muy lana loolu nag mi ngi koy def ci jamono ji nga xam ne ci lay raxasee awraam moom la jublu ci xina yashran ci waxtu mi tàmbalee wal fawru ak gaaw gi loolu mooy tàmbalee rek ba keroog muy àggal mu bañ a taxaw ci diggante bi loolu lañ jublu ci gaaw gi wa dal ko ak jonjo gi wa taxlilu char xalil karaw gi bi dansi madfuurin ànd ak bés lu ñu lett li kulli man ñeel képp koo xam ne dafar létt na karaw nan bokk na ci farata yi ginnaaw bu yéene weesoo gaaw gi mooy maanaam nga def ko ci senn saa boo xasee tàmbali ba keroog ngay àggal nga bañ a ci biir ci diggante bi leen lu bokk ci càngaay te baña taxaw <clears throat> loolu mooy loolu njublu ci gaaw gi jonj jonj gi itam mooy barab yi ngay sang yi nga xam ne dañ koy sang yaram yëpp rek nga nga loo ci liñ ci boo koy sang nga di ko bombaale euh, ci faratay la bokk ak jëmi karaw gi xalil gi nga koy xalil xalil tam ci ci karaw ci faratay la bokk maanaam euh, boo demee ci tasawudu saxaar xam nga foofu fa muy jàngale joxe misaalum ka sa jàpp woon sang woon farata te xamul farata yi te def ko anam ci defin wu rafet rafet foofu jàngalaale na fa jàngalaale na la fa nañuy sangoo boo bëggee kon euh, dana ko ko waxaat fii sax kon buñ àggee ci ni ñuy sangoo foofu da nga danga dana leer ci yow xalil karaw gi kañ lañ koy def bokk na ci faratay kon ba tey boo ki xam ne daf jigéen gi nga xam ne dafa létt karawam waxuñ la nag létti mees létti mees moom <coughs> dafa dafa dafa dañ ko tere dafa araam ci lislaam ko sa karaw dafa araam waaye nit ki nga xam ne jigéen nga xam dafa létt karaw boppam nga xam ne karaw boppam la jël létt ko bu fekkee ne day sangu dañuy bëgg buy buy buy buy buy buy raxas karaw gi mu bés létt yi baax ngir ndox mi mën a àgg ci deru bopp bi loolu faratale lay doon ndax deru bopp bi ndox mi da ko war a laal bu fekkee tam koo xam ne karaw gi dafa bari tam noonu nga góor la waaye léttut karaw gi wala comme jigéen lu ko mën doon karaw gi dafa bari lool tam ba tey mu mu fexe ba karaw gi àgg euh, mi àgg ci deru bopp bi euh, loolu tam farata lay doon moo xam nag lu muy moo xam ne day bës karaw gi wala day euh, xàjji karaw gi ba ndox mi mën a àgg ci karaw gi boobaa loolu farata lay doon ni bës létti doone farata kon loolu mooy faratee sangu mooy yéene ak gaaw gi ak jonju gi ak xalil karaw gi ak mooy eh, li nga xam dafa dañ koo létt wala karaw gu bare gi nga bës ko ba ndox mi àgg ci biir ba laal deru bopp bi loolu mooy faratee sangu kon ñu ñëw kon ci sunna yi eh, sunna yi mooy yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa da ko daan def buy sangu mu nekk loo xam ne dana uh, matal càngaay li dana ko rafetal tam waaye amut wàccuwaayu loo xam ne boo ko bàyyee te teyoo ko càngaay du baax amul wàccuwaay boobu li nga xam ne moom mënut a ñàkk nga xam ne boo ko bàyyee te teyoo ko sax càngaay li du baax mooy farat waaye sunna moom boo ko bàyyee te teyoo ko tey ba fàtte ko def ak jaamu yàlla tam du tee jaamu yàlla ngoog dana baax hmm. waaye sax boo ko fàttalikoon dañuy bëgg nga def ko ngir ganneen jaamu yàlla nga jublu si ngir nees bi da ko daan def te mosu koo bàyyi mu nekk loo xam ne luy mot li yàlla gi la hmm. faar kon nee na faar boobu ñeent sunna lu mu ñooy ay sunnaam ci jëkk mooy xas lu yedin raxas loxo indabtidaa in fa tàmm indabtidaa ika in fa tàmm fa ak tàmbali wala fa tàmbali ga rek la bëgg wax kal wudu indi ki jàpp faqtadi kon royal sunna yi ñeent la ba ci jiitu mooy booy tàmbali nga raxas sa loxo ngay def booy jàpp rek raxas ñetti yoon hmm. loolu mooy euh, bi ci jëkk mooy raxas booy sangu ni ki mu nekkee sunna ci jàpp noonu la nekkee sunna ci farata nga raxas sa loxo ñetti yoon ne la kon faqtadi mooy jëfee ndigal rek royal yonent bi sallallahu alayhi wa ci raxas gi mu daan raxas ay loxoom buy sangu farata loolu sunna la sum daan def na ko ci roy boo bëggee nekk nit kuy topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci topp mooy madmadatun galaxndiku kazalika ni ki noonu istinshaqu saraxndiku masxu simaaxil ni ak masaa bën bën nopp bi aman jële fa ña nga xam ne mu wala mu jógee fa ña nga xam ne faaqu kawe nañ dafa wax ne bokk na ci sunne njàpp galax dana galax xam nga ci ginnaaw dafa mel ne leeraloon nañ la lan mooy galax ndiku bu ma juumut dafa mel ne ci ginnaaw leeraloon nañ la ma lan mooy galax wala ci kanam la koy jàngale lu ci mën di am daal galaxndiku moom taarif maanaam jàngale lan mooy galaxndiku sëñ bi jàngale na ko fii moo xam ci lu ñu wees la wala ci lu jublu si la galaxndiku mooy maanaam nga seex ndox mi ba noppi xuj xujal ko ba noppee yàbbiwaat ko loolu mooy galaxndiku loolu mooy boobu mooy sunu ñaareel bi ci toog mooy saraxandiku saraxandiku nag mooy nga xëcc ndox mi ba ci euh, bën bëni bakkan yi ba noppee euh, boo agsee foofu nag nga wal ko mu génn loolu la ñuy wooye fiiru dana tamit ci sunna yi la xëy na dafay lim saraxandiku rek lim gi doy lool lim gi lim saraxandiku walis muy lim fiiru kon duggaal ni ci biir kon kon galaane ci sunnay la bokk sa fiiru itam ci sunnay la bokk mooy nga xëcc ndox mi ba ci paxi paxi bakkan yi ci biir walaat ko mu génn fekkee dangaa nekk woor nag doo ko xëcc bu baax bu fekkee wóoroo nag danga koy xëcc bu baax ndax bu dee dangaa woor mën nga koo xëcc rek mu jàll ñëw ci sa sa bone gi te kon mën naa yàq yàq sa kor waaye fekkee wóoroo moom danga koy xëcc bu baax a baax ba mu àgg nga doog koo walaat mu génn waaye sarax ko raay bën bënu nopp bi mooy nga jël sa baaraam tooyal ko raay ko ci bën bën loolu sunna la loolu sunna la mun nañ ñu lu ci masu simaaxil usni masa raay ko ci am amma jëmmi euh, nopp bi nii nag moom nga raxas ko loolu moom farata moom kon booy raxas nopp bi dëngal ko ne di ko raxas booy raxas waaye jëmmi bën bën bi da ngay jël sa baaraam laal ko ci rek raay ko ci nga xam ne dangay moytu kon nopp ndox mi dugg ci biir nopp bi bën bën bi rek nga laalale ko ndox mi loolu mooy sunna kon sunnay njàpp ngoog mooy yéene galaxandiku saraxandiku ak raay bën bënanam bi galaxan saraxandiku nag buñ ko waxee fiiru dee duggaale ci biir fii da koy dugalaale kon fa man yurit kon ku namm ku bëgg tarattubal xusli toftaloog cangaay la wilan cig méngaloo faqad nadamtuhu kon way naa ko kama kama qad nuqila ni ki tuxalees ko nit ni ki toxalees ko wala nga xam ne kamaa nit nga xam ne xat noqi laa dees ko toxal nee na ku bëgg a sangu te tof te cangaay la toftaloo nee na leeral naa la ko ci way ni mu jógee ci borom xam-xam rek mooy li bëgg a ñëw mu ne wa kullu man képp xam ne ixtasala sangu na minal janaaba tukkee ci toj mu mag janaaba ab àtte la boo xam ne ci kaw nit lay nekk bu nekkee ci moom li fi ak sangoo du dañ àtte la boo xam ne mi ngi ne ci kaw ku ku koo xam ne maanaam dafa jaxasoo la daf man yu dafa génn ci moom euh, ci ay nelaw wala ci ak yeew dem yëg ci bànneex ba ci war a yëg hmm. comme ni nga ko waxee jawri nafis yi nga xam ne ñooy waral toj mu mag ñooy waral sangu kon nee képp ko xam dangaa sangu ngir janaaba ngir toj mu mag fa ahsanul hayaati gën jaa rafeti melo ya fii ci moom ci moom cangaay li an mooy mu raxas yadayhi ñaari loxoom àddal ji mi limum ñett lir ko ba ci tikku jarab ida boobee wa xasala dem raxas alladi li nga xam ne asaaba jot na ko min ada ci sobe dana kon melo yi gën a rafet ci cangaay daal loolu liñ ciy déggee mooy am na yeneen melo yoo xam ne boo ko defee cangaay dana baax waaw am na waaye nag melo bi gën a rafet moom mooy ni mu wax mooy mu raxas ñaari loxoom ñetti yoon ba ci tikku jara bi ci jamono ji muy sangoo jamono ji muy am yéene tàmbali sangoo mu njëkk a raxas ñaari eh, loxo ba ci jara bi bu noppee nag xool li tax mu am toj mu mag mooy man yi ci moom ba mu nekk junu ba mu nekk aji janaboo aji am toj mu mag man moom mu xool fu mu ko fu mu jàpp ne taq na ko ci yaram bi rek mu raxas ko bu bu lëntee mu nga xam ne fu mu ne moom liy baax mooy mu njëkk a raxas yaram bi lépp ba mu set te loolu mooy ñu bari loolu la ñuy def boo xamul fu mu taq ci yow da raxas yaram bi ba noppi mooy waxal bu fekkee ne xam nga fi mu nekk nga ni fii moom leer na ne fi la yam moom nga raxas foofu bam set waaw mooy waxasal la si asaaba min azar raxas li nga xam ne jot na ko ci sofe li mu ci li mu ci julu mooy ki ki jaxasoob wala soxna si ànd ak borom gërëm li ko taq ci sobe fi mu taq rek bu raxas ñaari loxo moom lay raxas ba noppi ba mu set su noppee nag su ma topp madumada mu nga ni ko ma istinshaaqi ànd ak sarax ni ilaa tamaami ba ci ak matam moom njàpp ma bila shiqaaqi ci lu ak ŋaayoo bi maratin ci aw yoon nee na bu raxasee sobe si ba noppi nag day day daal di jàpp njàppam benn benn ginnaaw xam nga raxasoon na loxo yi ñetti yoon kon day daal di galaxndiku benn yoon saranteku benn yoon fiiru benn yoon raxas kanam benn yoon noonu la koy toppee rek ba ña ba ñàpp mi mat waaye lu ci ne nag benn yoon la koy def waaw du ci ne benn yoon la koy def su ko neexee tànk yi foofu mu bàyyi ba ba sangu ba noppi doo ko àgg raxas su ko noppee tam su ko neexee tam mu raxas ko foofu mu xalilan di aji xalil usula chanrin li cosaani ak kawarug boppam usula chanrin usula lañ bind waaye way wee tax ndax ngir mu tolloog li mu wax ne alaama qila waaye usula chanrin li ngir yow mii doo ko tàmbali bëgg Eh, ñu bëgg leer ci yow da shaarin dañ ko wax ngir way waaye usula shaarin li rasi wala usura usula shaari rasi la bëgg a wax way waaye tax moom ne usula shaari li rasi cosaani kawar boppam alaama ci la nga xam ne xiila waxees na ko nee na bu jàppoo njàpp benn benn ba noppi nag li daal xalil eh, maanaam kawar gi xalil goo xam ne day fexe ba mu laale fii kawar kawari bopp yi cosaanoo mooy maanaam day bàyyi xel ci xalil gi deru bopp bi xam ne day tooyal cosaani ca kawaru bopp bi buy buy xalil nag mu mubtadian mbir muy aji tàmbalee fii daaka ci lool maanaam ci xalil googu min mu wax xari jum-jumatin lahu ci mujjug kaamu kaamu boppam min mu wax ci mujjug ab ak ab kaamu bopp lahu ñeel ko boobu ñeel na ko li def ay dara ngir jël lor ngir jañ lor ngi tàmbalee ci mujj bi maanaam day safaanoog bu doon jàpp ni muy def buy xalil fii lay tàmbalee hmm, ñëw ba fii delloowaat ko hmm, li daf ay ngir jañ lor maanaam eh, nit ki bu amee bu ko cangaay waree janaaba ji war ci moom eh, am na ñu ne li li mu jublu ci loolu mooy lori janaaba jooju loolu bokk na ci li koy dindi mooy buy xalil xal bopp bi tàmbalee ko ci ginnaaw jëm ci kaw loolu euh, janaaba jooju ne ci kawam lor jooju muy loolu dana ko loolu am na ñu ko déggee noonu ngir janaaba maanaam dafa am lu muy def ci nit loo xam ne cangaaya koy dindi Hmm. jàngaay loolu nag nga ne mooy dundi mooy dindi mooy yëkkati janaaba moom euh, ngay booy sangoo nga booy massa sa bopp nga tàmbalee ko ci mujj kàngoor mu jëm ci kanam boo doon fi ko loolu ci li koy la bokk am na ñu ko dégg noonu wa xasala boppam bi talaati xarafaatin ci ñetti tànk min baadi ma qad qallala ci ginnaaw boo xam ne da koo xalil wala daa xalil wala xalil na maanaam xam nga xaliloon nga sa bopp tàmbalee ko fii ruufale sama ko fii ba nag bu loolu amee ba noppi nag dangay ngay tànqaat ñetti tànq tànq boo tànq sotti sa bopp ba muy ñetti yoon hmm, loolu la jumla ma mata topp jaala mu def fi raxatihi yum naa ci tenqul ndeyjoor ci tenqam alyumna la di ndeyjoor fi ci tenqam alyumna la di ndeyjoor mooy tenqam lu ndeyjoor la di ndeyjoor almaa ndox ma wa amaala mu jàngal arasa bopp ba wa xasala mu raxas uzunahu alyumna noppam ba di ndeyjoor wa yusraahu ak noppam ba di càmmooñ kazaak niki noonu bu raxasee bopp bi ñetti yoon day raxas noppam ndeyjooram bu koy raxas nag day jàngal bopp bi nii bu ko jàngalee fekk ndox mi def na ko ci tenqul ndeyjoor bi daal di jël ndox mi def ko nii raxas nopp ngir dañuy raxas bañ maanaam ndox mi dugg ci biir nopp bi ndax loolu baaxul day yàq am nopp kon day jàngal nopp bi nii raxas nopp bi bu noppee niki noonu càmmoñ bi tam mu def ko noonu mooy mu def ndox mi ci loxob càmmoñam jàngal nopp bi daal di koy raxas nii loolu yëpp ngir bañ lu la lor moo tax ñu ne nga jàngal noppi ngir bañ ndox mi dugg ci noppi ndax loolu baaxut ci dégg wa xasala mu raxas al unuqa ga raxas leen ak raxas bande zaak ginnaaw loolu bu noppee nag ci loolu day raxas doq gi ndox ci loxoom raxas doq gi waaw bu ne raxas la nag lu ñu judd mooy na ko raxas rek ba mu leer ko ne ndox mi doy ndox mi dañ na ko kap waaw te bomb na ko bomb gu doy kon foofu sàkkuñ fi am lim hmm. wa shiqahul ayman ak mu raxas waan dafa bëgg waxas na ay ayman ak wetam nga di ndeyjoor mu raxas wetam nga di ndeyjoor li rukbati ba ci ba ci bati woom ba ci bati woom bi bati woom bi su ma topp ay saroo gu càmmoñam nga saani ki noonu bi mu talaqin ci ndox muñ boyal yaawam moom dana matale yaram wéef nee nag mu noppee ci raxas doq gi lim cee teg mooy wetum ndeyjooram mooy li tàmbalee fii li tàmm yaa ngi may seen nii li tàmbalee fii bu tàllalee loxo bi day ndox bi fii mu wàcc mu làmbaale lii lépp hmm, mu ko ba ci bëti bi loolu mooy wetum ndeyjoor noppee tam càmmoñ gi mu def noonu sot tàllal loxo bi ndox mi lépp mu làmbaale ko ba ci bëti wóom bi nga xam ne lii lépp wet yi faar yi yëpp da ci bokk ba ci bëti wóom bi loolu lañ jublu ci wetam gadi ndeyjoor kon fii lay nii lay def tàllalee loxo bi sàng lépp faar yi ko ci boole waale ba ci bëti wom bi mooy wa shaqul aymana li rukbati suma aysraw kaza wetum ndeyjooram ba ci bëti wom bi bu noppee càmmoñ bi tam mu raxas ko ni ko mu raxasee wetu ndeyjoor bi ba ci bëti wom bi loolu yëpp nag mu jël ndox mi ngi koy defee ci ndox muñu boyal mooy ndox moo xam ne turu ndox dong moo ciy dëggu leneen du ci dëggu bu ñu nee ndox la kese kenn du ci mën a wedd dara ndax melokaanam ak cafkaam Eh, ak eh, ak ak ak ak mel kunóoram ak cafkaam ak xetam yëpp leen soppiku ci mooy mot almaa ul mutlaq mu nekk lu doy nag loo xam dana mën a matale yaram yëpp te bañ a bari bam di ko yàqte waxasala mu raxas rijlahul yumna tànkam ba di ndeyjoor ilal kaan bi ba ci bati wom bi bati wom bi waaw wala boog ba ci dojoor bi bokk ak jaawal dina kaam ba ci ndojoor bi wa baadahu nekk na ci ginnaawam wala nga ne wa ci ginnaawam mu raxas al yusra ba wala mën nga ne rek wa baadahu nekk na ci ginnaawam al càmmoñ tànku càmmoñ kazaaka ni ki noonu maanaam ginnaaw bul raxasee tànku ndojoor ba ci ndojoor bi day daal raxas tànku càmmoñ bi tam ni mu raxasee ndeyjoor bi rek ba ci ndojoor bi hmm. wag tamal waktamal logo fide tem matalane tem mate moom jàpp mi waktamale moom sangaay cangaay li waktamalal xuslu maanaam tem mate moom moom cangaay li bi xasli batani yi ci raxas biiram wa xasli sadri ak raxas dënn bi waaw min baadi ma ci ginnaaw boo xam ne xaddama na xasla zahri raxas ginnaaw gi nee na bu ko defee ne daal di ci ni li mu wax mooy day jëkk raxas ginnaaw gi ginaaw bu raxasee wetu ndeyjoor wetu càmmoñ tànku ndeyjoor tànku càmmoñ day daal di raxas ginnaaw gi bam ginnaaw gi bu noppee nag daal di raxas biir bi doo ko raxas dënn bi noonu lañ koy toftalee kon loolu mu tax mu ne min baadi maa qaddama xaslan saari balaa raxas biir bi ak dënn bi day njëkk a raxas ginnaaw gi ba noppi bu defee la ma la fekkee tànk yi raxasu ko woon bi muy jàpp mu raxas tànk yi hmm, bu fekkee raxasoon na ko nag foofu la cangaay li di jeexee kon euh, loolu mooy jataay bi ñu waroon a seq ngeen tey mu aju ci euh, nit ñi euh, sango ak faratay sango ak sunnay sango ni ko sëriñ bi radiyallahu anhu leer la ci tazawudu shubaan di ñaan yàlla mu defal ñu ak dégg gu mat ak topp guñ nangu defal ñu mujj rafet defal ñu sa texeeg àdduna ak texeeg àlaxira dellusiwaat di ñaan yàlla mu gën a dolli wàcc ay xéewalam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dolli wàcc ngërëmam ci sunu sang sëriñ Tuubaa xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radi anhu di ñaan tam suñ borom dolli tawfiq mbokk yi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bi ba liñ ci lépp suñ borom àggale ko wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.